E ki nga xamante ne nii moom moo di Cheikh Bamba Dièye mi ñu fal yees démb def na jéego bu rëy parce que li nga xamante ne moom moo di dotation carburant bi jëlee na ko ci 1000 indi ko ci 500 lu tolloog 500 litres de carburant yi nga xamante ne dañ ko doon jël mu nekkoon juste du gaspillage moom jëlee na ko fa tey ki jiitee aéroport bi moom mi yor wàllum dem gi ak dikk gi ci jaww ji ñu jéem a xool ak commission yañ cay àndal waxtaan ba réformer waat li nga xamante ne moom moo di aj màkk gi yaakaar naa ne solution dina ci war a mën a am suñ dee def aj màkk 2025. Mhm, solution dina ci war am yaakaar naa ne comme ni ko Binta waxee rek Mamadou Ibra Kane xëy na fam far la rek moo tax muy waxee muy joxe xalaatam ni mais Binta kii di ma Madiambal Diagne mhm. xam nga dañoo tëj fii ay comptam ci wàllum ndax dañ koy toppee wàllum impôt mhm. moom na tey dañ ko dalal euh, info matin wu TFM bi mhm. mais dafa waxtaan ak ñoom joxe ba ne 15 ans def na ko yoo xamante ni kenn mësu koo audité quinze ans yoo xamante ni kenn mësu koo càmbar daal maanaam xool ko ko bu ñu tollee ba fii ñu daal di xool di ko toppee affaire yu impôt day nduru ni acharnement la ci kawam day nduru Euh, régime bi dañuy koy attaque est-ce que ah. tamit quinze ans nit war na koo toog te kenn xoolu si say mbir. Mhm. Mhm. Binta. loolu bëri na de. Mhm. xam nga wax na tontu war na boppam. ma Madiambal Diagne. tey man demam gi mu dem ci Télé Futurs Médias def fa sorti daal di fay waxee dama tegoon ni su ñëwee dafay wax ni samay këyit a ngi nii musuma ameel état li nga xamante ne nii moom moo di impo waruñu maa indi redressement fiscal ci sama këru kaay gee di avenir communication. Hmm. man je m'attendais à ça ma jëmbal jaan ñëw indi li nga xamante ne ni ab démenti la. Hmm. face à l'état du Sénégal. mais boo ñëwee yow nga contre contredire sa bopp. Hmm. nga toog en tant que directeur nga toog daal di ne 15 ans kenn mosulaa càmbar. biliyaa yaa de parce que nguur gi fi nekkoon pendant 12 ans moom. moom ma Diagne da leen ah. doon xalamal ay tànkam da leen doon fëggal seeni tànk dafa toppoon ci li neex Macky Sall ak ay nitu Macky Sall hmm. dafa rangé woon ci côté état kon loolu moo tax moom kenn mësukaa taxaw càmbar ko tànk nag toog na 15 ans yoo xamante ne kenn mësukaa taxaw càmbar ko lii bu mu ko tuddee acharnement lu war la gis nga biliyaa lii dafay dellu si waat ci hmm. wax ji ma doon wax sànk ak Mamadou ibrakan hmm. mi ñëw taxaw daan ne lépp du impôt ma ne ko si lépp impôt la. depuis deux 2009 la wax. Mhm. depuis 2009 ba 2024 kenn mosulaa càmbar lan mooy fan la ko teg fan la fan la ma jambal jaañ teg ne kenn warut a mën a taxaw càmbar ko lan moo tax depuis 2009 ba léegi kenn càmbaru li nga xamante ne ni moom moo di wàllum fiscalité am fan la ko teg mag du nax boppam. Mhm. nguur gii fi ñëw gis nga lii ñu attaqué nii seen domaine la te lu ñu xam la te lu ñu maîtriser la. Hmm. ay inspecteurs yi nekkoon impôt et domaine ñoo ñëw o pouvoir xam nañu ñiy fay impôt ak ñi fayut impôt te ku ci fayut impôt dañ lay attaqué ah. indi la redressement fiscal xam nañu li nga xamante ne ni tey moom moo nekk ci say compte yow biliyaa dara réeru leen xam nañ ni loo mën a fay la ak loo mënta fay la hmm. waa depuis 2009 ba léegi fayoo doo dem nga waxtaan ak état bii fi nekk dëgg dëgg nga jéem a xool bor boobu nga xamante ne ñu ngi la koy toppee naka nga koy fayee. moom 91 lañ ko indil. Bougane Gueye Dany 2 milliards lañ ko indil te kenn déggagu ko mu yuux kenn déggagu ko mu wër plateau yi tey jii ñoom ñu ngi réunion. ñu ngi mhm. waxtaan na dem fekkee ji réunion bi ak patron de presse ñu jéem a xool naka la ñuy dem dem seeti ji état. Mhm. lii mu wax ni ay caaxaan la ken acharné wul jëm ci kaw ma jambal jaañ du acharnement loo war loola ak. nguur loo war loola ak sa réew war di ko fay koppar gi ngay fay ci askan bi day jëmaat moom mii ma jambal jaañ moo fi taxawoon di gañ ak a bàpp ne moom ay journalistam da leen di utal ay terrain yoo xamante ni fa la ñuy dëkk mhm. ak coopération d'habitat yoo xamante ni chaque fin mois nañ leen koy daggee ak ak ak méthode yi ñuy def ba journaliste am bu ci nekk am kër mhm. waa léegi nag yow yaa ngi utal say journaliste kër say employé c'est bien boobu loolu rafet la parce que kuy liggéey ku ci nekk rek sa patron war na laa mën a dimbali ba nga am ab kër ngir boo demee retraite nga xamante ne da ngay nekk tranquille doo nekk ci location lu rafet la mhm. waaye dama ne ma Madiambal ñàkkul lu mu fayee état du Sénégal quatre-vingt-onze millions na ko fay jusqu'au dernier ma Madiambal lan la jëriñ sénégalais hmm? lan la apporteel Sénégal ah, avenir communication ña fa nekk di liggéey est-ce que tey jii nii moom jambal Diagne pare na ngir xam ne ñii kenn ku ci nekk te moom ñam yi fay dafay dagg ci seen salaire li nga xamante ne nii moom moo di ay taxe ak i TVA yoo xamante ne tey jii nii sab salaire lay jóge jëmaat ci moom moom mu waroon kaa jël jox ko état te danaan kan dandiix mu lekk ko lii ñu leen di toppee nag bu fekkonte ne ñun waxkat yi. Hmm. moo xam muy journaliste bi présentatrice bi reporter ba nekk sur le terrain technicien ba entre autres ñun ñooy lekk xaalis bi su boobaa nag ñoom bu ñu waxee ñun ñu génn xeexal leen waaye da ngay gis patron de presse boo xamante ni day yor employé du ko teg ci dans des condition meilleures. tey ñu indi la redressement fiscal nga taxaw yuuxu daan ne kon su boobaa damay limoger ñëpp damay tëj damay jëm ci fayit yaa ngi nax tamit sa bopp. Hmm. dëgg dëbb ndëgg sërëx woo xamante ni employé ba bis bu ca suruxee yow yaa ko ci yóbbu du état moom moo ko ci yóbbu parce que la nga doon dagg ca salaire am bu fekkonte ne wàccoo nga ko ak état du Sénégal mhm. su boobaa nag kenn du taxaw daal di ne état li muy def lu yoon waaye da nga koy dagg ci say employé dagg ko ci leneen ak leneen suñu paree nag ñu ne la fayal nga daal di taxaw ne état dafay acharné wu ci man ma Madiambal dafa wax ba yey boppam 2009 ba léegi kenn mosu kaa saytu jëm ci wàllum fiscalité fan la ko teg léegi nag saytu nañ la nga daan ne acharnement la. Mm. nan la ñu acharnement jàppee ko mbirum politique. loo war a fay da nga koy fay loo warta fay fay te xam na ni moom mii di wax. c'est écrit noir sur kaa war a mën a fay multinationaux yi mënuñu di jooy ne dañaa ñëw ci suñu réew du ñu fay impôt sénégalais bi nekk ci biir réew mi di gis boppam à 100 cent pare taxaw ne du ma fay impôt état luñ bopp say mbir bloqué say compte nga daal di taxaw ne acharnement la kan moo acharné wu jëm ci sa kaw yow yaa acharné jëm ci kaw askan bi li ñuy lekk riba rek la ñuy lekk riba rek la ñuy dundee su fekkonte ne dafay ñëw ci journaliste bi su boobaa kenn du leen jooyal waaye xaalis bi ñoom ñoo naan kan dindeex lekk ko journaliste bi gisut yëgut tinu tànk nag ñoom patron yi nga xamante ne ñoom ñoo ko ŋànk nañu dem négocier ak état c'est le moment ou jamais. journaliste yooyu ngay wax ba xam nga ne am na ñu bëri ñoo xamante ne seen salaire bu ko xoon ci télévision yi ñu bàyyi leen. ñoom xëy na c'est tellement précaire. Ah, waaw waaw seen i mbir ñoom moom Madiambal Diagne daal wax na ba yay boppam 2009 ba léegi 2009 ba 2024 yow nga jàpp régime bu bees bi fi ñëw rek ñoom dañoo dañoo am benn bët bu ñu lay xoolee noono non yow yow yaay jug di dal seen kaw di génne say révélation yoo xamante ni seen kaw rek ngay dal mais deux 2009 ba léegi war nañ laa mën a xool. xëy na nag ni ko élage Hadj Ndiaye waxee moom fay na ba mu wóor ko ni moom fay na na yeneen ni fay rek képp ko jàpp ni mu soo say impôt ngi fi fayoo ko demal nga fay ji normalement si suuf ndax tey jii nii fi ñu ko bëgg jàppee mooy président baal na ñu bëri ne baal naa leen président bu baalee wàllum euh, impôt yi loolu assemblée lañ ko war a dem. voté ko fa fa lañ ko war a yóbbu du du du président moo war a jël ndogal boobu directement te baa xam ngeen décret bu président jël bu président ñëwee mën na koo dindi kon nag bu ñuy topp naan président baal nañu baal nañu baal nañu képp koo xamante ne da ngaa yor entreprise si réew mii nii te nga war a fay impo jotoo fay impôt dama nga fay ji li nga yoree yëpp ñiñ fi jàpp muy les premières arrestations muy Mamadou Ba ak euh, kii di Daouda Gueye gis ngeen leen ñoom euh, impôt lañ leen toppee ci 900 millions jàpp 1 milliard de francs CFA te jàpp nañ leen muy gérant FS Oil ak ex patron DG Oil mu mel ni rek ñooñu ni ñu leen njëkk jàppee noonu ñeneen ñi am na ñoo xamante ne ñu bëri ku ci mel ni suma construction ñu ngi koy toppee ci lu toll ci 4 milliards te nga gagné marché yi gën a mag fii nii ci wàllum tabax ak yeneen ak yeneen kon bu ñu demee ba ñun ñuy xeex ne ñi fi ñëw samp nga xamante ne ay multinationaux lañ dañoo war a fay impôt normal que ñun ñi suñu doomi réew ñun tamit nekk ci réew mi yor fi tamit entreprise yor fi ay doomi réew yu ciy liggéey war nañoo mën a mën a tamit fay ay impôt ndax ku si di dagg sa salaire ñu dagg la wàllum tax tamit wàllum TVA ba pare yow mii di patron bi yow da nga dul verser état li mu war jot ci yow ndax tey ji tali yi yëpp ci lii lañ koy ta lañ koy tabaxee kon donc nit dangaa war a fay impôt normalement baalewuñ tey baalewuñ suba pour ngeen xamee ko noonu ko jot am impôt moom boru impôt dama nga fay